ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun Touba TV ñu ngi nag Brésil euh, am gan gu mag suñu seex di kilifa fii ci réew mi ñu ngi am mbégte ngir dalloo ko sëñ bi Ndiaye ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu waa Touba Argentine TV di am mbégte mu yaatu ci jóge Argentine bu xam ne ne Argentine ak Brésil sore na bàyyi seen itte ngir ñëw. waaye it ñu gis fan yi sa génn ci ay vidéo ab manifestation boo xam ni it àndoon nga ci lii sabab bi nag mooy doomu sénégalais yi ñuy faat ci latin bi boobaak léegi mujjul fenn. waaye comme noonu ko waxee bala ñuy dugg ci kàddu yi rek dañuy jaale suñu mbokk julli yi nga xam ne ñoo fi làqoo dañu faat mujj di Serigne Ndaak waaye ku nga xam ne Mouhamed Dem tamit ca Bayya dañ ko faatoon noonu nga ko laajee rek euh, ci euh, ni nga xamee ne mooy li nga xam ne moo fi am muy faat gi nga gis ñu jóg euh, dem dëkk bu ñu naan Cascavel nga xam ne fa lañ ko faate ànd ak mbokk yi taalibe yi fa nekk ak mbokk jullit yi fa nekk ngir def marché boo xam ne dañ ko autorisé woon mm-hmm. waa préfecture bu Cascavel ñoo ko autorisé mm-hmm. jox ñu aussi euh, an ñoo na ko ay journaliste waa Globo mm-hmm. waa Record waa SBT jox ñu aussi sécurité ak oto boo xam ne nii danañu mën a def li ñu bëgg muy marché bi mhm. ba nañ ko bëggee woon suñu borom def na am nañ ko ànd kook euh, waa waa Kaskavel mhm. ak Serigne Cheikh Bousso ak waa Toledo ci Alaaji Cheikh Anta bi nga xamee ne marché nañ ba journaliste yi jël ñu ba interview ñu ñu dem fa nga xamee ne fa lañ ko faate woon toog fa defal ko fa ay dog ñaal ko fa waaye soññante ñun ci suñu biir mhm. ñi nga xam ne ñu ñoo Sénégalais ci li ñu war a soññante muy gën a sax ci liggéey gën a sax ci jaamu yàlla gën a sax ci sax ci njub gën sax ci topp li nga xam ne ni moo ñu fi inte bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla ak liggéey ak topp yoonu sëriñ bi mhm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax mu mel ni it uh, tasaaroo na maanaam am na média tigi boo xam ni it am na ci ba du ñàkk ni dana dugg ci nopp état bu réew ma boobu tey ndax saafara am na waaw sëñ góora boobu ak tey xam nga saafara moom du jekk-jekk rek am waaye nag loolu tubaab naan euh, ce n'est pas entré dans l'oreille suur maanaam kàddu yooyu daal duggul ci nopp ku tax mhm. mel na ne euh, saafara dana ci am Ah, ci ay fan yu néew xëy na mën naa am sax mën nañu wax ne semaine yi di ñëw waaw dana am xëy na kilifa yoo xam ne danañ jóge Sénégal mm-hmm. ngir ñëw fii ngir war a toogook ñun ngir ñu wax leen yenn jafe-jafe lañ am mm-hmm. ndax kenn ku ne xam na ne euh, comme ni ma koy waxee Amérique latine lañ nekk muy diggante Brésil Argentine booy xool Mexique moo fa amaat sénégalais mm-hmm. te Mexique bëriwul ak dëkk yooyu bëriwuñ ay sénégalais donc kon concentration sénégalais bi fii ci am relative dafa nekk ci diggante Brésil Argentine waaye boo xool sëñ góor a depuis 2015 je pense pour gërëm bi fi njëkk am mi ngi amee woon euh, ca Cachias Diakh Ndiol mooy crime bi nga xam ne ci kër fi am 2015 sëñ góor a ba 2018 mënoo am benn résultat bu leer ay mbokkam ña ngay toog ay soxnaam ay doomam di souffrir gouvernement Sénégal waroon na indemniser njabooti ñooñu faatu gouvernement Brésil bu leen gouvernement Sénégal pressionné woon danañ indemniser njaboot yi ñi nga xam ne ñoo faatu. booba tey enquête bi génnewul dara lu war a ni lii ma koy indi. waaw booba léegi non seulement enquête bi génnewut ma rey moo moo lii ne moo koy indi loolu mënoo mënaguñ ci xam dara waaye suñu autorités yi nga xam ne mooy ambassadeur bi fi nekk ak nga xam ne ñoom la nekkal consulat ñooñu mu nekkal amul benn résultat buñ la boo xam ne nii bu leer la buñ la mën a jox ne la ah yëf yi fii la toll wala yëf nii wala ñu jël aw kayit sax jox la nga mën a jox ay mbokkam waaye mbokkam dañuy ñàkk noonu ay soxnaam bàyyi fa njabootam loolu di loo xam ne nii ku ko dundul rek mënoo ko xam te dundul nañoo ñoo xam ne nii xëy na jege jege nañu jege goo xam ne am na lu jóge ci ñoom ñu sentirandoo méttiroo ak ñoom mm-hmm. moo tax nag bi nga xamee ne nag euh, non seulement sax sañ góor a mm-hmm. faar yeeg yooyu mm-hmm. mais rôle ambassadeur ci réew mooy su déggee ñu ne dañoo rey ab sénégalais dafa war a jël billet avion déplacé wu def constat xool lan moo tax ñu rey ko bu ko xoolee à partir de là nag ci lay doog nag woo sénégalais yi ne leen ah arrêté nañ suñu mbokk nangam mais cas yi fi am yëpp ñun sénégalais yi ñooy déplacé wu Mohamed Dem bi mu amee Babacar Ba moo jóge Goyaas dem Bahiya lijjanti ko ñàkk xaalisam bàyyi liggéeyam dem ba dem Sénégal ba ñu denc ko kaaw Cheikh Fallou Ndak bi mu amee gis nga ko ni mu demee woon man maa bàyyi ko fii dem ànd ak waa Cascavel ñu def marché bi ñu jël koor bi yóbbu ko ci mbokkam ñu sarxal ko waaye nag bu dee loolu mi ngi am kon ñu am suñu autorité autorité yi ñu fi andi lan la ñuy jëriñ donc amul gisuñu seen njëriñ boo demee yow Argentine xam nga ne Massar Ba doonoon sama wóolëre mosuñoo gisante mais dañ doon déggante Massar dañ ko faat ci anam yu day waar masaar ba léegi faatam googu mënta andi benn résultat benn résultat boo xam ne ni mën nga koo xam ci faatu Massar Ba moom nga xam ne ko doon jàppale sénégal la ñu faat ko rek bàyyi noonu ñun Adama Samb mi nga xam ne janvier ba léegi ay mbokkam démb rek maa leen na jot ñu ngi jaxle nekk ci yow tiis jaxle ñu bàyyi koor ba foofu janvier ba léegi kenn jéemu ci dara mais loolu dafa dafa jekkul jàdduwul rafetul ci ci jullit ak moromam kon ñun suñu gouvernement lan la ñuy jëriñ ñun waa Amérique latine ban avantage ban privilège lañ ñu jox. ndox boobu fees na ci nga yëkkatee kàddu ni ambassade bi fi nekk mën na dellu Sénégal mu ndax def fi dara da jàpp ne ci moom la it wala njiit yi nekk ci kaw. waaw man nag ci moom laay jàpp parce que man du ma ambassade xam nga. Mhm. man daayira laa jiite. liggéey ci yoonu Serigne Touba li may def lépp Serigne Touba tax ma koy def. Mhm. ndax moom laa gëm moom laa wóolu moom laa yaakaar te moom rek gis nag. bàyyi sama liggéey jël sama xaalis dagg sama billet avion dem ànd ak ñoo marché bi yaakaar naa ki fi teewal njiitu réew moo ko gën a man mhm. que man personne civile bi nga xam ne damay taxale yaakaar naa ne loolu moom rôle am la du woon sama rôle waaye nag ci kaw nag bu am fekkoon ne ci cohésion ak moom nekk ak jege gi ñu war a jege. ak ak ni ñu war a di di di di di di jokkalante. su fekkoon am na ñun déjà lépp lu ñu def rek danañ ko def au nom de autorité yi. parce que ñun ñëpp ay jullit lañ. waaye nag bu fekkee nit dañ la ànd ci réew ñu nga war a dimbale gisoo gisuñ la dégguñu la jegewoo leen mais noonu la dimbale parce que nit ki mënoo koo dimbale te jegewoo ko. mënoo nekk fële nit ki nekk fi nga tëdd sa bureau mu a ci naaj wi. te à chaque fois bu ñu la waxee waxi sénégalais yow au retour da ngay jox toor bi sénégalais mhm. mais sénégalais ñu ngi évoluer sañ góor a tey booy xool fii san Paulo yéen li ngeen war a def yéen a ngi koy def maanaam ñoom li ñu reconnaître mooy kayit bu fekkee am na koo xam ne faatu na fii ndax da ngeen def tramité bi jëbal ko ko ndax bi waaw kay ku faatu li njëkk li njëkk am ku faatu rek automatiquement li njëkk am mhm. ñoom bu ñu joxewul passe avant bi mhm. ñoom corps bi du mën a dem Sénégal donc kon ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk a yëg ku faatu dana egg sax ba ci sénégalais yi nga xam ne dañ leen jàpp ci kaso yi léeg ñu woote fa ci ñoom ne leen ab sénégalais kat jàpp nañ ko mi ngi dëkk sàngam mais ñun ko yëg léeg-léeg da rek gisoo benn waay nga koy laaj ñu ne la tëj nañ ko bu yàgg mais loolu du yoon parce que droit li mu la wax mooy bu ñu la jàppee yow ci dëkk war nañ laa bàyyi nga woote woo ko woo ko nga xam mu wax ni di laa xam mais bu fekkee ne yow dem nga ñoom woote wuñu woote ci ambassade man diw jàpp nañ ko dafa doon def nangam wala dafa nangam quoi que ce soit mais na ko Sénégal yi yëg suñ ko mën a jëlee avocat jëlee ko avocat parce que kii rey Fallou Ndak tey dafa dem jëlee avocat toog est-ce que tey gouvernement Sénégal jëlal na avocat Fallou Ndak ba mën koo plaider amul donc fu ñuy mujjee mooy ki ko rey day mujj génn nag ci mbedd mi bu gisaatee beneen sénégalais en ko daf koy reyaat loolu moo tax ci vidéo bi maanaam kii sera le prochain xamuñu kan moo ci topp parce que bu ñuy rey di rey di rey nii rek amul réaction ambassadeur kenn gisu ko kenn dégg ko woote wul yónnee wul ñëwul donc kon elle n'a pas sa raison d'être au Brésil amul amuluñu fi njëriñ amuluñu fi benn njëriñ léegi nag dañu nekk au vingtième vingt et si siècle soo gisee coow yeeg yi bari léegi moom la ci poche lu mën a xewati danañu jël suñu suñu suñu génn def suñu vidéo jooy ko fañ ko war a jooyoo parce que daa génn boobu am na solo sax ba yaakaar naa ni tudd nga ko léegi bi ñu ubbi dara am ñuy jóge Sénégal ñëw ñoo xam ne daa ñu bokk ci ci bi maa ngi dégg it nga ne yaakaar naa fi ne am ngeen accès directement maanaam seen i kàddu mi ngi jàll foofu ci presse du ñàkk ni la yàgg dana am waa incha allah dana am parce que mooy la ma wax maa ngi koy wax bërki démb ci benn émission mati xam nga ñun Amérique latine dañu am dañu am fausse note au niveau di palais fausse note bi mooy euh, dafa am benn sama benn xaritu mbàkk mbàkk boo xam ne dafa gis benn député bu jege Macky Sall ne ko yow de excellence Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk Brésil Argentine sonn nañ du ngeen leen dimbale mm-hmm. mu ne kon kooku nekko député bu am franc parler la. dafa nekk dafa jege loolu nag Macky Sall kooku nag ñu ko topp ñu ko ñu ko topp kooku ne ko président bëgg naa dimbali waa Amérique latine mais dafa bëri ñu ko fa contre. mais loolu démocrate du ko def. ñun amuñ jot contre kenn ñun taalibe Sëñ Tuubaa lañ. Sëñ Tuubaa la ñu liggéeyal amuñu ku ñuy contre ku ñu àndal suñu amee lu ñu naqare dañ koy kaas dañ koy wax. loolu moo fi nekk mu am mu mu am beneen sama benn xaritu wëla rek kilifa boo xam ni. dafa gëstaat benn ministre de la république. nekk ko mais yéen Brésil ak Argentine bu ngeen leen toppatawut ba élection yi ñëw du baax ci yéen de mu ne ko non ñooñu moom président toppatawu leen duñu maanaam gouvernement bi du leen toppatoo ndax xam na ne du ñu wote mais ñun suñu voté wul suñ góor a man yor naa kër Sénégal yor yor nga kër Sénégal ñun am nañ famille Sénégal ñun ñun suñu voté wul fii mën nañoo jox suñuy famille directive ñu voté donc kon loolu yaakaar naa du mooy débat bi et puis ambassadeur dafa am message bu mu yor boo xam ne nii bu ko doon conseillé bàyyi message boobu gis nga doomu aadama bu ñëwee ci dëkk bi di góorgóorlu na ci mbedd mi di rayante di rey boppam bu ko police daqe nu mu dawee ba rafale bagage lay wër kenn du xëy yor say bagage génn sa biir kër dem ci mbedd mi ngir di dóorante croisé police amul donc buñ ko du bu fekkee ne moom dafa dem ci barab rek gis ay sénégalais na leen mais bu mu ne jaaykatu mbedd Sénégal dañ fa tere mbedd bay tudd xalifa général bi fi nekkoon ne mi ngi doon def déguerpissement mmh. donc bu doon def déguerpissement voie pluriel de déguerpissement mmh. Sénégal sénégalais ñun lu ñu am dañoo war a fier ci doon sénégalais. parce que suñu mag ñu baax ñu ngi fi Serigne Touba lim ñu jàngal ñu nàmp ci ñëw fii mun mënuñoo bon. sénégalais mooy xeet wi gën ci àdduna bi ndax ku feebar nga faj ku dee nga yóbbu koo xam ne ni daa feebar te mënut fi may waxee yow trois cas yoo xam ne ni. Mhm. daal les prochains jours wañ leen yóbbu Sénégal ngir dañoo feebar mënatuñoo toog ci réew mi liggéey. loolu fi ne yéen a ko di taxawee. waaw loolu taxawaayu état la woon léegi loolu ñun ñoo ko mujj di taxawee moo tax ci benn waxtaan maa ngi naan nit ki boo ko nekkalee ci euh, naaj wi dafa laa war a nekkal ci kër gi waaye nag loolu dafa amul beneen ba ci topp nga xam ne moom damay dégg mu koy faral di wax mhm. mi ngi naan réfugié boo ko xasee ba def mhm. euh, considéré wurutañ laa considéré comme Sénégal comme moom wuru laa plaidel mais loolu image bu ñaaw la mhm. image bu ñaaw la du question que sénégalais buy ñëw day ñëw def réfugié ngir toog ci réew mi sénégalais sénégalais man tañ góor lu ñu fi mën a am bugguñu fi dara ñun lu ñu fi mën a am ñibbi moo ñu ko gënal su ñu amoon xaalis bu dul jeex weerewu dee woon ñu yónnee suñuy dépense Sénégal tabaski ñu jënd suñuy xar Sénégal yóbbante liggéey yi nga xam ne sax yaa ngi koy dégg mu jëm ci Sénégal ci Touba mhm. liggéey yépp Brésil ak Argentine nañ ci def seen loxo donc kon njort naa ne mhm. ni mu war a jegee Sénégal yi ak ni mu leen war a taxawee daf daf koo deful mais barki dem moo njaay gis nga fa Argentine fa nga nekk mhm. dugguñ ci benn galerie raxas seen galerie bépp est-ce que dégg nga ambassadeur bind waa Argentine wala mu def ci benn jéego wala gouvernement Sénégal ci benn effort amul benn bi ci topp Argentine dañuy tëdd ba xaaju guddi. ñu dugg ci kër yi jël seen i bagage mhm. fu muy mujj. ñu ngi sax mu bokk ci ni yow sa taxawaay bokk na ci fexe ba Sénégal fii euh, Argentine am ambassadeur foofu it defe naa am nga ci ay jéego ndax yaa ngi yaakaar na nga am résultat. waaw loolu moom mooy suñu première doléance parce que. Mhm. loolu dafa am naan une pierre à deux la. ndax ñun suñu doléance fi ne ba ma gën a ñor man man Cheikh Ndiaye en tant que jëwriñu Serigne Touba. Mhm. mooy njabootu Serigne Touba gii di fi ñëw. ñun ñu leen di jëli di leen yóbbu ci hôtel yi di leen teral ngir sëñ Tuubaa suñu bëggee jàll Argentine ambassadeur bi lànk na lu leen defal note verbal te barki li mu def dafa lu doy waar parce que dafa maa benn lettre dañu ma bind lettre indil ma ko sama place ne ma ci lettre bi ñu nit ci na ambassadeur nee na kilifa buy ñëw di ci réew mi na dem affaire étrangère ñu defal ko note électronique ko defee bu ñu ko envoyé mu defal ko note verbal mu am mu am visa Argentine barki démb bi nga xamee ne sëriñ Mamour Mbacke moom sëñ Cheikh Awa Balla bi sama xarit lool dem na affaire étrangère dañ ko xamal ne ko yéen ambassadeur bi nga xam ne mooy madame Correa te nekk Brésil bind na benn kayit envoyé ko affaire étrangère wax ne benn mara buñ ko buñ defalati kenn note verbale bu jëm si Brésil loolu xam nga lu mu ci jublu mm-hmm. parce que consulat bi nekk São Paulo soo ko jëlee note verbale bu Sénégal mm-hmm. boo waxtaan ak moom mu defar la visa mm-hmm. consulat bi nekk Porto Alegre ku fa dem en cinq minutes mu defar la visa xëy na loolu la yëg nag bëgg koo xañ njabootu Serigne Touba gi waaye nag njaboot suñ Tuubaa gi moom leen waaye bëgg xañ danga xam ne yow yaa ciy xañu waaye ñoom moom sëriñ bi defal na leen lépp fàgguñ na leen lépp waaw mhm. yaa ngi tudd benn projet boo xam ne dafa jëmoon ci femme immigré yi it mu mel dafa am bloc ba wax nga ne xam nga fi mu fi mu tukkee loolu it waaw femme immigré yi soxna Naata Samb Mbàkke moo ko yor ñu koy nuyu au passage euh, femme immigré yi li ko bloqué ci moom moomu la moom Korea la parce que soxna Amine Ngango mu nekk Rio de Janeiro dem na ba Sénégal donc ministère def ci ay jéego ba nga xam ne soxna Naata Samb mu ñëw financer soxna yi moo ci des donc bu amoon avalu avalum avalam moom moom day daal di ñëw deme deme deme mhm. mais soxna Naata Samb nag bu fekkee ne ñoom dañu yor projet ay projet yu tal noonu mhm. suñu soxna yi nekk fi jigéen ñi nekk fi di sonn xam nga ni jigéen ni mu ni mu gaaw a sonne ci réew mënuñoo fexe ba projet yi ñëw ci réew mi kon moom blocage bi ci moom moomu la bu wootee woon suba mu ñëw bu dee mission la la ciy ragal hébergement mën nañ ko bu dee billet sax la bëgg dagg ay nit ñu ko mën a daggal billet ngi fi bu dee fu mu nekk la ay nit a ngi fi mm-hmm. ne serait-ce nag soxna yi nga xam ne ñoo fi nekk di na leen góor ñett mën nañ see moom dañ leen jàppale ci projet yooyu ñu jot ci parce que projet yooyu 15 milliards la mm-hmm. jëriñu lu dul financer jigéen diaspora bi mm-hmm. donc bu fekkee ne nag kon moom dañ ko soumettre projet boobu na ci def ay jéego soxna naata Samb ñëw ba waa Amérique Latine jot seen la jëriñ bu loolu jàllee it euh, ñi nga xam dañuy xayma wala ñuy takk dañuy takk ni li fi faatu ci ay doomu doomu brésilien lim bu takko takk la boobu boo doon xool sax am na ay parties yooyu ci Sénégal tol na noonu nga xam ni nekkul koon ab boo xam ne dafa jëm ci ñi nga xam ñoo di sénégalais yi ban message pour ñu gën a moytu it xam condition yi nga xam moom lañu nekk ci réew mi. waaw dama koy wax toujours xam nga dañu ñu bëri dañu naan Brésil dëkk la mais violent ci ki nga xam ne dafa dem fa am violence ñun ay jullit lañ mhm. xëy liggéey wàcc toog suñu kër lañ tal lu ñu violence ñun dañuy liggéey di jàmm yàlla am lu am solo loo xam ne suñ borom daf ñu ko baaxee muy ay dayira sëriñ Modou Bousso Dieng ba nga xamee ne dafa dem Afrique du Sud ñu fay faat ay sénégalais biñ ñëwee wax ko daf leen a joxoon lu gàtt te yomb ne leen fépp foo xam ne nii nekk ngeen fa nekk fa mbooloo bu fa dayira amee dimanche bu jotee nga dem dayira ba dimanche bay ñëwaat kenn du la faat xam nga dèjà loolu protection la boo xam ne nii sëñ Modou Bousso Dieng bat bu gàtt la waaye njëriñ a ngi ci lu bari donc kon daf ñoo joxoñ nañ ñun bu dee murit ba bu dimanche jotee ne dem daayira murit ba bu dee tijaan ba bu daayira bu dimanche jotee ne dem daayira tijaan ba bu dee xaadar ba bu daayira jotee na dem ci daayira ba bu dee laayan ba naka noonu waaw loolu mooy message bi nga xam ne moom laa jox sénégal yi di leen wax ne nañ gën a muñ gën a góor góorlu booy xool sañ góor fi ñu nekk mooy muy Brésil am nañu évolution bu mag parce que booy xool tey restaurant yi macha allah ñaata restaurant nañu centre bi. bëri na salon de coiffure coiffeur am na fi yaakaar naa ñaar. kuy dugal xaalis war yi boo bëggee mu dugal la am na fi. Señooro Diop jëwriñ Tijaan yi moom mi ngi def euh, ria di def yeneen yeneen yeneen yeneen change boo bëggee jënd crédit Sénégal wala woote Sénégal ñu jaay léegi loolu sénégal Sénégalais ñoo koy def donc évolution mi ngi am te évolution ba bépp ñu ngi koy am à travers sensibilisation bi nga xam daayira yi ñu koy def man def naa message def naa audio ba tàyyi nit xëy suba teel ñëw sama place taxaw ne may dama lay san dama lay gërëm audio bi nga def dimbale na ma bis ni tey lii ma nekkoon jóg naa ci maa ngi dem suñu ji sama cartera wala lii ma nekkoon jog naa ci maa ngi dem ci lu feere bu nga déggee réew la moo xam ne it na ci lu bari yaatu ci lu demee ne it mën nañ fi jëlee xam-xam yoo xam ne mën nañ si ko jëriñoo fii ëllëg bu ñu demee Sénégal mën nañ ko jariñoo yaa ngi ciy wax kon mbokk yi ñu gën ci farlu bu baax waaw non seulement mën nañ ci jëlee ay fii da mën nañ ci jëlee ay xam-xam parce que boo ñëwee mhm. waa accueillir ñooñu ñu la buñ la buñ la recevoir ba pare ñooñu nga xam ne boo ñëwee néew doole si ñoom ngay dem mhm. ñu recevoir la ba pare ñoom dañu lay dugal ci benn école de formation mhm. bu fekkee ne déggoo portugais dañ lay yóbbu jàngale la portugais nga jàng portugais bu fekkee ne da ngaa soxla faju ñu bind la nga dem ci benn hôpital boo xam ne doo fay doo fay dara su fekkee ne métier xam ne nii da nga fa mën a jàng métier ba boo duggee di métier am na sama boo xam ne Abdou Khadir Thiam kooku mi ngi boo xam ne nii ma ngi liggéey ci buntu buntu asu ak ak menuisier liggéey am na Sénégal boo xam mi ngi fi ku sa yëreeti lim tey boo ko wooyee mu ñëw jël ko fóotal la ko ba mu set yóbbul la ak yeneen possibilité yoo xam ne ni bon Sénégal yi ñu ngi ko def ci biir loolu nag ñun dañ cee war a fier mais bul jël bul ñëw rek jël sénégalais yi sa def leen ci benn mbuus ne sénégalais yëpp a yem dañoo mel ni sénégalais dañoo mel ni walaal asim boo jokkoo ak yeneen xeet yi ci ngay xam ne sénégalais moo gën ci xeet yi parce que man fi muy liggéey ab galerie la su may liggéey chinois ma nga fa libanais ma nga fa marocain ma nga fa égyptien ma nga fa paraguayen nga fa ñëpp nga fa mais jaxasoo gi ma jaxasoo moom tax na ma gën a jàpp sénégalais tax na ma gën a naaw sénégalais mbooloo nag du ñàkk ñenn wala benn wala ñaar ñoo xam ne nii dañuy def safaan waaye nag ñooñu bu lañ jiyee ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñooy kii parce que booy xool Brésil ak Argentine li fi nekk booy xool ci xayma mën na dix mille personnes mm-hmm. mais boo xoolee li ci kaso yu lépp boo ko limee fukki nit ci lay tool mm-hmm. kon évolution am na léegi nag li ñu war a def mooy jàppale leen accompagner leen mm-hmm. ñi ci kaso yi gis naa Amadou hmm, Abibou Ndiaye mi fi nekk woon Amadou sax daan moo ko tàmbali woon dama daan dem ci ñi kaso yi am na jigéen goo xam ne quarante deux lañ ko tojoon seeti woon na ko yaakaar naa war na génn Abibou Ndiaye bi mu ñëwee doon na def ay visite dem ci kaso yi di mais ñooñu ci ñooñu ak lu ñu mën def ci àdduna ci société bi lañ bokk ambassadeur war a ta dafa war a dagg biyee dem ca kaso ya seeti sénégalais yi xool kenn ku ne lan mooy problème am ku ci jël avocat jaree mu jël avocat su ko mënul mu wax ñu ko ñu jëlee leen avocat ñu indiwaal leen boole leen société bi mais gis nañ ñi yéen daayira mbooloo mi daanaka it euh, lu bare bari bu amee ci yéen lay jaar ndax yéen ngi sàkk ngir jege ko di waxtaan ak moom di ko àgg it yenn cas yi nga xam ne Sénégalais ñu ngi koy am. waaw xam nga sàkku jege moom kenn du ko sàkku parce que ñun fii ñu war a nekk lañ nekk ñu ngi sàmpoolu bu ñu xëyee tey dañuy liggéey bu ñëwee ñu ngi suñuy kër moom mi nga xam ne dañ ko fi ñu saytuñu mhm. moom moo ñu war a sàkk ngir jege ñu xam ni it mën nañ fa teg ñeneen donte ni ñoom duñ ko bay mu nekk loo xam ni it ay tollaalar ba lañ koy tuddee loolu it ndax yéen a ngi xalaat pour ëllëg ngeen bi ci dox xam nga loolu lépp bala moo bala moo mën a suñu kilifa yi nga xam ne dañu fay ñëw te soxla benn këyit muy note verbale bu la ñu yóbbu Argentine tam bu ñu demee mën a dajale mbooloom deux cent personnes yedd leen yee leen ñu jaar ci yoon di liggéey di jël addi yi leen jox addi yi jooju ñoom suñu demee di ci invité Sénégal di ci tabax ay daara di ci sàmm di ci bay yaakaar naa kuy dimbale réew ci mbàkke mbàkke ak ci kilifa yi ñoo dàq def investissement ci réew ma ambassadeur ñun ñoo koy fay ñun ñun population ñoo koy fay donc buñ ko dee fay te lu ñu bëgg ñun mënuñu ko defal muy benn kayit boo xam ne ni moom lay ratifié wane ne kii c'est un chef religieux mais bi ma demee consulat bu bu bu bu mais consul bi daf ma dalal jox ma café ma naan ñi biroom nii mën a ma meew yaay président communauté mouride mën a waaw mën a ma may yéen damay seetaan seen vidéo mais pourquoi yéen seen ambassade bi fii ñii fi ñëw di ay diplomate kii bi ñu soxla du leen ko defal bu ñëwee fi ma defal leen mu jël téléphone am woote ci ba day wax français wax ak ñoom wax ak ñoom wax ak ñoom wax ak ñoom boobu Cheikh Ndigal moo fi ñëwoon mhm. ñu koy làkke daadaa mu ne man mu daal di coupé daal di dugg si biiroom mhm. defal suñu Cheikh Ndigal visa bàyyi ko mu dem mais loolu bu ko am na saraan ma ne li suñ tubaa mhm. kii nga xam ne nii moom nee na ab jullit la vraiment mënuloo ak suñ tubaa mais loolu daf ñu jaaxal te sëriñ tubaa nag képp ku koy xeex rek da nga detteelu képp ku xeex sëriñ tubaa ci àdduna da nga detteelu te te te ñii nga xam ne nii léegi ñooy ŋànk suñu suñu suñu suñu njiit suñu réew yi ñi ñuy yebal ci àll bi day mel ne xeex sëriñ tubaa moo leen tax a ndax boo demee boo demee am na ci réew yoo xam ne boo fa demee tey du note verbal boo ko bëggee dañ lay dañ lay këyitloo mais note verbal këyit bu toll nii la bu tamit ci ordinateur bi da ngay da ngay tapé mhm. dugal turu Mara bi jox ko mu signé yow ma yowoo visa note ba leen jox nga joxe ko kii nga xam ne nii moom bu demee mooy dajale mbooloo ma yow sa tâche sa liggéey bi nga waroon def yow ambassadeur mhm. kilifa gi moo la ko yombalal mhm. ndax yow boo demoon Argentine wala nga ñëw Brésil mënoo fee dajale fukki nit boo ko jaarewul ci daayira moom mu mën a dem dajale njabootu Sëñ Tuubaa gépp wax leen na baax leen jub leen liggéey leen jaamu leen yàlla ñu déggal ko muy njëriñ uh-huh. sëriñ aboo moom Cheikh Amadou Fadal bi mu fi ñëwee li mu wax ambassadeur bi maa ngi toog mu toog mi ngi toog mu ne ko yow yow mii magee la fi teg mais da nga xam ne Cheikh mi sëriñ Tuubaa ko fi teg uh-huh. kon na ngeen jàppante xam ne yow ñii yaa seen seen ak njab yaa yi leen yilif uh-huh. nag ma leen topp tool suñu aboo loolu la ko dénk sama kanam mais deful loolu loolu jàllee seen relation ak état yu réew mi donc yaa ngi seetaan journal yi bët ban la ñuy xool tey doomu Sénégal. réew mi moom ni ñuy xoolee mooy xoolin wu rafet man dugg naa fi dix ans bay waaj def onze ans mm-hmm. vraiment euh, Sénégal boo bu ñu foo dëkk nga Sénégal li ñu njëkk def mooy ree li ñu def mooy Sénégal ñu ne Sénégal ñoom la ñuy njëkk wax donc kon. Mm-hmm. dërë Sénégal ci réew mi macha allah parce que bu ñu mënee def am marche. ñu mën a jël oto jox ñu jël ay policiers jox ñu ay si ñëw ànd koog ñun loolu day wane ne kon ñun ah, suñu intégration baax na Rio de Janeiro gi ñuy defee journée xasida bi te ñu war faa dem samedi salle ba ñu jël salle bu mucc ayib la salle boobu dañu leen ko abal te te te waa état bi ñoo leen ko abal ba ñuy def dañ leen di indil ay policiers indil leen ay ñu escorter leen ànd ak ñoom kon ñoom delloo nañ njukkal Serigne Touba ñoom waa réew mi xam nañ ko Serigne tubaa mhm. ñoom waa réew mi xam nañ luy murit ñoom waa réew mi xam nañ luy sénégalais ndax sénégalais moom foo ko tuddee ci réew mu ñu la Sénégal kon nag moom suñu adresse ñun gàcce ngalaama ñun suñu image daal ñun defar nañ ko te ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ñun ñun man damay damay wax ne man ambassadeur laa jàppe sama bopp ah ma wax parce que ku ma xool ab tubaab da nga am loo xam ne dana la da nga ko da maanaam da nga ko mën a jàngat ci man da nga am xemmemte goo xam da nga ko mën a da nga ko mën a jële ci man ma ne ah kii kat ni mu yaroo kii kat ni mu ni mu noppi kii kat ni mu ni mu li leen gën a yem ci ñun mooy yar bi waaw li ñu gën a ñeem ci ñun mooy yar bi ndax sénégalais moom du la saaga du la xas du la wax dara te loo ko def mu jéggal la loolu nag laay woo sama mbokk sénégalais yëpp nañuy jéggale tey jëlale te ñu xam ne réew mi dañ fay ñëw di am si ñu fi indi bu ñu amee dañuy daal di ñibbi ñëwuñu fi ngir dëkk ñëwuñu fi ngir topp seen jigéen ñëwuñu fi ngir naan seen ndox mi ñëwuñu fi ngir gën leen a bëgg seen réew ndax sëñ Ibrahima Khalil Moussa Fall dafa waxoon ñetti baat yu am solo nee na réew mi bëggee mucc da leen bàyyi seen jigéen ñi ak seen ndox mi ak seen réew mi waaw loolu day dénkaane boo xam ne ku ci topp rek mën nga mucc fii ak fa ñu jëm waaw kon nag loolu la ñuy dénk sénégal yi di leen wax ne daal vraiment nañu gën a góorgóorlu gën a takk xam ne événement yi fi am suñu takkuwuloon bay dajale ay xaalis di yóbbu vraiment kon lii ñu xew yi lii xew yëpp lu xew kon nag ñu ngi ànd ak euh, ñëpp vraiment di di leen di leen sensibiliser waat di gën a wax ne nañ gën a ànd rek gën a booloo. yaa ngi ngi fi bëgg a ñëw yàggatul ban message mooy bu daar boo xam ni su ngeen leen di woo ci lu gaaw ñu gën leen ci taxaw. message bi nga xam ne mooy premier de l'Alliance Amérique latine. Mhm. mooy Argentine na am un consulat général wala mu am ambassadeur. Mhm. gis nga euh, sëñ Gora. Mhm. Sénégal bërki dem maa ngi koy wax ci avec Mati Trois Pommes di ko nuyu au passage ndax moom it day def liggéey bu am solo diaspora bi. Sénégal dafa am moo Argentine. Sénégal daf ci am échec diplomatique loolu échec diplomatique di Sénégal laa ko tuddee. sëñ Gora man réew nga gis ci àdduna ay doomu réewam dem ci dëkk am nekk fa mille personnes à 10 000 personnes munoo fexe ba am fa représentant diplomatique. loolu kan moo échec. c'est état moo échec. donc seen échec diplomatique boobu. peut-être seen yoon bi bu ñëwee moom la ñuy réparer si. jàmp bi gën a daar fi ne. mooy ambassade na am ak consulat ak consulat général en booy xool am na plus de deux mille sénégalais. Mhm. jàpp trois mille sax mënu maa xam lim bi. ñun. Mhm. nañu am fii un consul. Porto Alegre. Mhm. mooy ñaari dëkk moo am concentration sénégalais bi gën a fort. São Paulo Porto Alegre. Porto Alegre am consulat. São am consulat. su ko defee. passeport yi nga xam dañ koy bëgg dégg naa bëgg dem sori Gaba wax ne Canada dafa sori ak Afrique du Sud ñoom lañ defal bureau passeport fixe mais moom moom sóoraaluwul Brésil kon donc nañu sóoraale Brésil ak Argentine. bureau passeport fixé dañ ko war a am bureau carène fixé dañ ko war a ndax sonn nañ bu ñu indilee ab bu ñu indilee fu ñu nii ab commission xam nga lu ñu def Sampolo ñetti fan Rio ñetti fan Port Elhadj ñetti fan loolu ñu tee tee ko Sénégal moo ñu ko gënal wala bu ñu demee ba di ko indi aussi ñu wax ñu nañu ñun problème yi la ñu am dañoo am problème financement wala ñu am problème indemnité bu ñu leen fay wala ñu am problème logement ñu wax ñu ñun ñu dajale xaalis ñun daggal leen biyee ñu ñëw Sénégal mhm. héberger leen jox leen añ a réer ñu wax ñu ñaata leen fay indemnité ñu fay leen ko ñu defaral ñu ay carte d'identité yu doy defaral ñu ay passeport yu doy mhm. waaye defaral sénégalais ci Brésil gépp nag ay carte consulaire mhm. parce que consulaire yi am bu ko solo loxo laal la mhm. ndax euh, bëri na ci dëkk yoo xam ne fi ne ba léegi carte consulaire Toledo bari ki démb lañ fay doog dem defal leen carte consulaire te yàgg nañ ko càmbat am na yenn dëkk yu gën a sori boo demee ba ci ba ci nord-est bi dëkk bi mel ne Recife xëy na am nañ consul honoraire mais consul honoraire yooyu ay tubaab ñoo fa nekk te Macky Sall nañuy dimbali ngir jëm sëñ Tuubaa consul honoraire yi mhm. euh, am na consul am mhm. mais consul boobu tey bu nekk bu fekkoon ne ma nga ma nekk na sénégalais mhm. mais bu ñuy marché dana mën a ñëw kon consul honoraire yi nañu ko defal ay sénégalais bugguñu ay tubaab nekk suñuy consul honoraire réew am na ay mag ñu fi yàgg def fi 30 ans ñi def fi 20 ans jàng ba yor seen diplôme nañ leen tànn sélectionné leen def leen ay consul honoraire ñor li nga xam ne moom la ñu war ci dëkk bi suñu jigéen ñi nga xam ne dañu nekk nga leen soxna naata sàmm ñëw ngir yàlla indil financement comprendre nga président Macky Sall nañ ko wax ne ko ñun amuñu tal amuñu amuñu jotu contre kenn ñun suñ tubaa lañu àndal ñun daayira lañ xam ak liggéey jaamu yàlla ànd ak association bi nag di liggéey liggéey bu am solo ci wàllum administration donc taluñu yooyu taluñu ñu naan non président dafa war a bugg di lem foofu parce que fii ku fii compte président dégg naa sax am na yoon bu mu bëggoon a ba ñëw boo xam ne nii moom Korea def na ko boo demee Sampol dañ lay yoxoo fii nit ko nit ko manqué éducation fi fii ay nit ñu ñoo fi nekk maa leen di garanti ne bu ñu fi ñëwoon nit ñi bu ñu wax ak ñoom nañu war a wax ak ñoom danañ toog danañ leen déglu wax leen seen doléance ñaan leen dem ñibbi fii nit ku nit kuy def violence amu fi nit kuy président amul Brésil amul Argentine nit kuy yooxu ministre wala homme de lettre am homme d'état amul Brésil amul Argentine ay nit ñu éduqué fi nekk ay nit ñu yar ñu fi nekk ay nit ñu yar fu ñu leen war a yare ñoo fi nekk donc kon message wu la amoon di ko jàllale bokk na ba tey ci doléance yi ñi nga xam ne dañu fi faatoo bëri na comme nag xaalis yooyu nga xam ne yëpp ñun ñoo ko doon dajale te nee nañ ma nga Sénégal nañ ko def recensement ñu remboursé ñu parce que xaalis yooyu mën naa jënd ki sëñ Tuubaa mën naa naa jënd saawiya bu ko tiyaan naa jënd kër yoo xam ne mooy kër sénégalais pour association yi moom ko donc kon xaalis yooyu nañ ko remboursé mi ngi état bu Sénégal nee nañ ku faatu ku ñu rey bal ñoo war a yóbbu kon suñu leen def demande de remboursement su ko defee ñu remboursé ñu suñu xaalis dégg naa Sori Kaba en tant que directeur de Sénégal extérieur boo ko démb dimanche mu def benn émission bu mu defee émission moo ko Omar ñi ngi émission bi ñu koy wax point de vue mhm. émission bi am solo lool mais moom ndeysaan diggu mu tudd ci benn yoon Fallou Ndak te Fallou Ndak bërki démb lañ ko faat maa ngi dégg mu an cas bi mujj Brésil mooy Ahmed Dem donc information bi ba war a jàll jàllul mm. moom yorul les informations nécessaires mm. te mooy directeur de Sénégal de l'extérieur mais loolu suñ góor a day lu doy waar parce que directeur de Sénégal de l'extérieur rek nga doté information nécessaire man dama ne sax xëy na émission bi bu ñu koy enregistré fekkul euh, Fall Fallou Ndak faa décédé mais bi ma déggee ñu interpellé ko Cheikh Bamba Dièye te Cheikh Bamba Dièye yoo xam jooju di bëri ki Demba Ndiaye laa nekkoon kii nag donc dafa dafa désinformé wu informé wul mais Fallou Ndak moo mujj Mouhamed dem te Fallou Ndak paaka lañ ko jëm fii ci ko mu yoroon leen cinquante rial donc ñu nit bàyyeeguñ euh, waxtaan yi bàyyeeguñ vidéo yi dañuy pause ba am leneen loo xam ne ni lu bees la ñu indiwaat ko tegal ko Sénégalais yi ndax vingt et unième siècle lañ nekk teel a ci wax dafa am benn écrivain bu ñu naan Aimé Césaire dafa xool lu am solo. dafa wax ci nasaraan ne ne dane dane ma bouche sera la bouche de des de des des comme nu mu ko waxee sax ma bouche sera la bouche de de ce qui ce qui n'ont point de bouche. donc dafa bëgg wax foofu ne ñun suñuy kàddu ñun. waaw ma bouche sera la bouche des malheurs. qui n'ont point de bouche. loolu dafa bëgg wax ne ñun suñuy kàddu ñun suñ koy jël jëluñu suñu kàddu am tant que Cheikh Ndiaye. kàddu yi ñu mënta wax la ñuy jël. kàddu yi ñuy toog suñu ruq la ñuy jël kàddu yi ñuy déglu ñuy jël politique luñ politique lugul wuñ sëñ Tuubaa doy nañu suñ demoon ba élection yet sañ nañoo jël nag ku ñu neex ak ku ñu day woo suñu njaboot woo suñu am du jàmm ne leen wootal leen diw loolu ci suñu baat ca kaw waaye nag guddi yi ñu toll politique lu wuñ politique lu wuñ dóoruñu martuwuñu ndax fukki at ak benn ko def ci réew olof Njaay ne na bëy la mu lekk ba sax sikki mbu ci weyee deeca loo amul ci réew ma dootoo ko amati ñun fi ne ñibbi ñibbi ne takkaat suñu bëggaat ñibbi moom lañ gën a jege ci desaat ci réew mi kon amul lenn loo xam ne ni ñu ngi koy soxla ndax sëñ Tuubaa moo ñu teral ba pare te sëñ Fallou du fee ñëw bërki Dembo Ndiaye mu suñu Aboo ñaan fi dama wax ne sëñ Fallou daan yàble 2008 ba 2018 sëñ Xalil moo daan ñëw yow daa la fekk daan ñu ñaanal moom ma njëkk wax ne toog leen dana baax boobu li lépp amuguloon boobu lépp amuguloon heureusement nag mosuñoo fanaan ci mbedd waaye booba dëkk bi doyoon na waar dañ mhm. Xalil fi ñëw di fi ñëw ba dixième année dañ Fallou nag ne ko bii yoon nag xaaral ma dem mooy suñu aboo daal di ñëw bi mu ñëwee bi mu taalee bomb bi moom dëkk bi dafa tàkk jëppet moo tax coow li ngay dégg ak wax yeeg yëpp taalibe Sëñ Tuubaa yi ak jullit yi du ma waxee taalibe Sëñ Tuubaa yi nag jullit yëpp laay wax ndax Sëñ Tuubaa moom mooy njabatal islam gépp ku leen yéen jàmm ci réew mi da nga am jàmm waaye ku leen yéen jàmm barke Cheikhul Khadim doo fi am jàmm ndax sëriñ Abo ñaan na ko fi te te ñaan gi moom nangu na bu yàgg kon nañ leen ñeen jàmm nañ xam ne sénégalais bunut bu ñuy blâmer sénégalais bu ñu jël benn sénégalais bu def benn défaut ñu bëgg ci raxaal téeméeri sénégalais parce que bi keroog bi bi muy ñëw sëñ bi rek moo ambassadeur bi ñu koy gunge ci étranger bi rek mi ngi tàmbali daan ah sëñ bi de war na ñaan sénégalais yi ngi tàmbali bëri problème mais loolu ku fier ci sa ku fier ci sa patrie ku fier ci sénégalais doo wax loolu donc nañuy muñalante nañuy suturalante àdduna sutura la àdduna muñalante la àdduna yërëmante la te surtout ñuy waxante a nekk ci yoo xam ne ni yàlla bëgg ko yonent bëgg ko sëriñ bëgg ko mel na ci waxtu jeex na dernier moom waaw dernier mot mooy damay nuyu waa Argentine yëpp vraiment di kaddu yu nag di ko yëkkati ci turu sa ñànko ba ndax waxoon na ma ne heure boo yëkkati di kaddu na nga wax ne samay kaddu ak say kaddu benn lañ. Mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla ñu koy nuyu suñu wëla rek la ñuy déggante bi set. Mm-hmm. waaye di ko yëkkati turu mbooleem koo xam ne nii yaa ngi ci réew mi. Mm-hmm. Euh, fédération bu Rio Grande Sul suñu as gede fédération bu Paraná bàyyi sëriñ ka jiite ko. fédération bu Santa Catarina sëñ Njaw Mbay ngi jiite ko ak mbooleem jullit ak. Serigne Yoro Diop mi nga xam ne moo jiite daayira Tidiane bi fii ak Touré mi nga xam ne moo jiite daayira Niassène bi ñi ngi wax ñun ñëpp seen tur bëgguñoo wax nag benn wax boo xam ne day gaañ bu ñu sañoon lépp lu ñu fi wax rek njëriñ lay doon loo xam ne doomu aadama dana ko mën a jariñoo ndax mooy la ma la wax rek même ci néem seega lañ nekk te teelal la ci poche kenn ku ci nekk da ngay xool message ba nga xam ne danga ko mën a jàll nga jàllale ko ndax barki dem rek dégg nañ président naan réseaux sociaux yi yi nekk di saaga mais ñun yarewuñu saaga xemewuñu saaga tey keppaaru sëñ Mandoumbe la ñeroo foofu képp ku fa yoroo ak taalibe ci ngay faatu te ñun ak taalibe rek moo ñu ñor leneen ñoruñu xëccoowuñ xiroowuñ ŋaayowuñ bëgguñ ci pos wutuñuy marché wutuñu ku ñuy dóor wutuñu xaalis wutuñu dara liggéey joxe addi suñ tubaa dong lañ fi nekkee kon nag daal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di sàkku ñëpp ñaanal jàmm di wax ne suñ góor ñu ngi siyaare bu baax waa Argentine di leen bëgg di wax na it ñoo bokk lu ñuy lu ñuy sàkku lépp ñoo ko bokk donc kon incha allah lépp lu ci mën a feeñit dañ koy bokk njëriñ li bi ñu bokk rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu